société ak la loo ci xalaat. ah la ma ci xalaat mooy fi mami daanelee rek parce que en journalisme dafa am lu ñu jàngal. Mhm. les faits sont sacrés le commentaire. le commentaire est libre effectivement. léegi lui il donne des commentaires Bougane Gueye Dany en tout bon sénégalais il donne des commentaires et on on on accepte ces commentaires waxam la xalaatam la. Mhm. maintenant ñun li ñu wax ci ACCT boobu noonu li ñuy wax tamit ci CSE bi. Mhm. suñu commentaire la te dañu koy dëggal maanaam dañ ko war a seeyal. Euh, xam nga Sénégal toll na foo xamante ni il faut que ñu liggéey toll na foo xamante ni waxoon naa ko fii keroog faaw ñu focus. Mhm. focus boobu noonu ñu doon campagne de euh, il y a de cela des mois tey la gën a war a mën a ne parce que on a un pays en bat à bâtir on a des choses à régler mhm. on a aussi des trucs yoo xam ne dañ ko war a dañ ko war a leeral. Mhm. te foofu la ñu toll fi mu ne nii. tolluñu si. tontu ay nit yoo xamante ni ay frustrés politiques lañu je suis désolé de le dire. mais ce sont des mais. on parle de Bougane Gueye Dany. Mhm. Bougane ban ban ban élection la jàll. ban élection la listam dem ñu déposé ko officiellement mu jàll parrainage bokk ak gars yi compétir am au moins zéro virgule zéro zéro zéro un pour cent. ban élection ndax dara xëy na rek sotti. non mais xam nga bu ñu naxante. yow nit koo xamante ni yow nee nga da nga bëgg a diriger Sénégal. Mhm. nit kooku noonu taxaw ne man woote wu ma nañu yaxalal yaxanal xaalisu réew mi. Mhm. kooku yow di nga ko wóolu ba koy dénk dëkk bi. je pense pas. nit koo xamante ni dafa yor entreprise comme tout bon sénégalais. entreprise boobu noonu am ay droit am ay devoir devoir yi mooy lan mooy impôt mu war ko fay mu ne mënu ko fay pendant ce temps il se pavane avec ses millions ak ses milliards di ko wane. Eh, pavane tranquille mais c'est ce qu'il parce que fii la taxaw qu'est-ce mu ne non montre bi ma takk mën na mën a garantir kër d'accord. kooku sa alal la yaa ko liggéey yàlla la lew doom <laughs> mais ñun Sénégal dafa am ay réalités yu fi nekk mm-hmm. on a un pays à bâtir et on n'a mm-hmm. pas besoin de nit koo xamante ni dafay wone la mu am on n'a pas besoin de nit koo xamante ni nanguwul tënku ci li nga xamante ni noonu la règlement bi di doxee mm-hmm. pour kooku noonu mën ñoo diriger Sénégal là moo man mënu ko considérer comme étant dans la classe politique je désolé de le dire maintenant ku ci nekk nag xaatam ku ci nekk gis gis Thierno Alassane Sall li kii euh, wax li ma mi wax soo seul problème à lui c'est que il ne sait pas où se situer day tâtonner jusqu'à là parce que depuis mu ngi wax waxu on ONAS bi man waxoon naa ko fi temps yële yàggul dara je pense kër nan tey la woon. nee naa leen dafa war a on avait déjà parlé sax est devenue caduque. mais moom il continue di wax ci li nga. xamante ne mooy affaire ONAS. mu ngi noonu xam nga moom moo mhm. ñu ciy revenir loo ci wax ji. mais wax ji wax ji dañu ko war a leeral dañu mhm. ko war a leeral parce que tout mhm. simplement les sénégalais méritent de savoir lan mooy li nga xamante ni tey jii nii. Mhm. moo tax ba coow li une deux trois ñu si waa ñu si waa mais Cheikh Dieng juste pour rappel Cheikh Dieng moomu noonu dégguñ ko woon ci benn scandale yàggul euh, ci beneen ci beneen régime. donc tey nit ki nga xamante ni déggoon nañ la ci scandale ak nit ki nga xamante ni tey sénégalais yi wóolu nañ la wax dëgg yàlla s'il y a euh, confrontation sénégalais yi dañuy jël vite parti mais nag man je pense que en tant que sénégalais en tant que journaliste dañu war a leeral mbir mi non pas pour man je ne le dis pas pour critiquer qui que ce soit parce que ñoom ñaar ñëpp xamaluma leen dara lu dul diw mooy Cheikh Dieng diw mooy Cheikh Tidiane Dieye diw lii la woon diw lii la woon jeex na foofu laa ci yem ak ñoom. Mhm. maintenant nag ñun en tant que sénégalais lan lañ doon gérer kii ONAS kii ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Mhm. donc ñoom ñooñu ñëpp dañuy liggéey ngir ñun sénégalais moi y compris et moi en tant que sénégalais moi en tant que citoyen je veux savoir qu'est-ce lan mooy histoire bi lan moo indi coow lii lépp. Mhm. te loolu kan moo ko mën euh, kan moo ko mën a leeral. moom Cheikh Tidiane Dièye na ci wax lu leer mu jàll. enquête parlementaire oo gëw ma loolu. ay plainte contre x ak dugal na fële dugal na fële. on n'a rien à se reprocher mais on dit les choses telles quelles aussi simple que ça et puis on chose mhm. moo tax ñoom seen i mbir seen wax seeni i affaire kooku mhm. ñoom la concerné encore une fois de plus mais ñun sénégalais yi nañu focus ci li nga xamante ni mooy essentiel bi mhm. nañu focus ci éducation bi focus ci li nga xam ne commerce bi focus ci li nga xamante ni mooy euh, industrialisation. ak mhm. yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni. moo ñu amal solo ñu ngi xaar mais pas mais pas di déglu ay nit yoo xamante ni. pendant ce temps ñoom ñu ngi tëdd sur de million voire de mhm. milliards di mener la belle vie. Mhm. am ay gàlle yoo xamante ni macha allah di dawal ay oto yoo xam ne macha allah bëgg a ñoo tours lëndam jël suñu xel mi dugal ci ay affaire noo diw wóorul diw liiwul diw déedéet. mais la faute fi mu toll ah, nii presse là ñoom peut-être ñoo leen di ñoo leen di bàyyi ñuy wax. ñuy animer débat public dañoo sikk parce que hmm. on ne sait non c'est la vérité dañoo sikk parce que hmm. on ne sait pas <laughs> dire les choses par exemple hmm. ñaata plateau ngay gis fii Sénégal par jour. ñaata plateau ñoo ci wax ay thèmes yoo xamante ni tey jii ni am na solo. non on parle que de politique hein. y a que la politique. y a que la politique. dañu dem ba Sénégal tey dañoo enfermer benn boucle boo xamante ni on ne parle que de politique. Ah. on ne parle que de politique. Mm-hmm. man loolu moom day métti sama bopp balaa maa dee ñu dama kaa kaa kaa xam nga dañu war <laughs> man je vous le dis de man mm-hmm. j'aime man ñi gars yi di tudd ñii ñëpp man ay TikTok yi soo si duggee léegi léegi sama algorithme loo ci gis ay reetaan ak affaire parce que loolu soxla. yaa am soxlaw ma leneen ay diw kuy nettali laay fu jàmbur ak. diw def na lii diw dem na fi sama yoon nekku ci. Mm-hmm. man tant que Sénégal gi ñu bokk ñun. mu ngi tegu ci yoon di liggéey di avancer man si suis bien. et je pense que ñun sénégalais yi foofu la ñu war suñu mentalité foofu la war a toll gis ñi di wax ñi ñëpp ñun ñoo leen may fulla waaye barki yàlla bu ñu xëyoon semaine nit wax ay mbiram lijjanti wuñu ko yi waxuñ ci tiktokuñ ko challenge wuñ ko léegi ñu noppi. plateau yi waxtaan waxtaanuñ ci jërëjëf euh, man de ah xanaa keneen di ko gérer waaye tant c'est moi qui gère le conducteur <laughs> boo waxee ci ci fenêtre du ma la may buntu boo ko buñ ko jàllale ajaratu tàngal bi ñu jox de billaay wala mosuma gis lii. neex na de nañu ah, anniversaire nag. waaw waaw ayca. sànni dana leen rey eh, sànnil sa kaddu ci kaddu yi nga xamante ne Bougane yëkkati na ko. wax dëgg yàlla duma ci wax. Hmm. xam nga tax duma ci wax. Thierno Alassane nag. ma ne bàyyi ma continuer. ayca ma développé. Hmm. ah doo ci wax mais da nga développé. bu may développé je t'aime bien tu sais. parce que lii la bëgg xam nga sànq maa ngi la koy wax ci revue des titres. Hmm. ku nekk ak ki ko wax a tontu. ku nekk ak ki mu tollool. dañ lay wax ne. toppandoo sa maas diiroo koo yemal mbagg. Mhm. toppandoo sa maas. diiroo koo yamal mbagg. ministre ministre lay xulool. député député lay xulool. chroniqueur chroniqueur lay xulool. bu fekkee nekk ko dara ci politique bëgg diiranteeg mbagg ñi nga xam dañuy laa jiitu ci politique tu as des problèmes frères. mënuma gëm chaque jour nga mën a génn ci une te nekkoo personnalité politique boo xam ne def nga dara ci dëkk bi soit une yi koy commandité soit yaa ko def bu ñu la saagaa nga ne bëgg nga buñ la buñ la buñ buñ la buñ la buñ la vaaree nga ne bëgg nga l'essentiel mooy xam nga lan nañuy xëy di wax ci Mamy Samb wala chaque jour bu ñu xëyee gis sama kanam ci communication la bokk nit ñi nag ñooy muus di wax ci yow wala ñu ti wax ci yow boo amee plateforme boo dem yóbbu ko fa ñu waxal la ko boo amee say chroniqueur yoo xam ne yaa leen sant la ñuy def nga dem nee wax leen ci man mais man du ma defal sa promotion boo ma fayee nag ma defal la ko. communication dafa am lu muy laaj sérieusement communication ak communiqué yi dafa lu muy laaj mënoo koo def parce que da nga bëgg di nga tey new ak pom bokkuñu fi ñuy jaayee new kenn du fa jaayee pom <laughs> lu nekk ak lu ñu koy jaayee waaw mënoo jóge ci new ñëw ci pom da ngay rampe dëgg la tey ñii di wax ñu ci bari ci ñoom mm. Kouramaki la ñu tollool te ki moo leen mm. raw xam nga lu tax pay loo ko bañ bañ sooy wax di nga ne ko honorable député bokk na ci <laughs> cursusam di ko ko wax bu fi jógee tam di nga ne honorable député Koura Macky am na ñoo xam ne mosuñoo dégg président ASC donc duñu leen may ay buzz yoo xam ne amuñu ko Thierno Assane Sall tuumaa lañ ko fii ne dañ koo jox xaalis ci conseil constitutionnel dañoo waroon dindi malaanu kiraayam yóbbu ko juge ko balaa muy andi naan dafa leeral Cheikh Dieng dañu ko fal par décret décret moo ko fol ñu teg fa